salaam ñoo ngi leen di dalal ci vidéo bi dañuy ñëwaat ci affaire bi am diggante Bril ak Dieyna am na information yu bees comme quoi que ne Dieyna Balde frère am Ali Balde ak Pape Ba dañu leen a defaree pour sàcc ak chantage Bril ba muy porter plainte xalaatuloon benn yoon que ni Dieyna moo nekk ci ginnaaw mbir mi ñu ñëwaat ci histoire bi Dieyna bu seen petit gallé dafa nangu ne moom moo def plan bi pour jàpp petit copain Bril Faye foo objectif Dieyna ci affaire bi moo nekkoon tiital Bril avec la complicité de son frère Ali Baldé d'après Dieyna Ali da doon wax ne Bril da ko doon manipuler di ko pousser aussi pour ñu monter plan bi fa leen jaar sàcc fa téléphone Bril sàccaale aussi ay caabi otom si loolu nag si lañ découvrir si biir téléphone bi ay vidéo yoo xamante ne Bril moo fa nekk ak ay xale yu jigéen am na vidéo yoo xamante ne sax tudd nañ si Marichou plan bi moo nekkoon Dieyna simulé sàcc si appartement bi vers deux heures du matin si lañ récupéré téléphone Bril ak caabi otom si aussi si lañ gis ay vidéo yoo xamante ne yu compromettante yu Bril ak ay xale yu jigéen pour dooleel seen plan si la Dieyna def semblant nëbb ñaari téléphone am yi nañu information bi comme quoi que ne dafa jël téléphone yi sànni ko pour ñu bañ koo gis loolu yëpp nekkul woon leen lu dul appuyer plan bi après loolu si la supprimer cinq clips vidéo de Bril yu nekkoon YouTube entraînant un dommage de perte à plus de 10 millions de francs CFA actuellement dañ koo déféré moom frère am ak benn xaritu frère am ñoo ngi xaar seen jugement avant loolu Bani Jour def na communiqué pour leeral mbir comme quoi que moom bokku si laalu si